sant suñu borom di julli di sëlmal ci Moustapha sallallahu alayhi wa ak ñu ku méngoog moom ginnaaw loolu ñoo ngi nuyu uh, mbooleem waa daar ji yëpp nuyób islaam te mooy assalaamu taala wa barakaatu nu am mbégte nag dellusiwaat ak yéen tey niñ koy defee altine bu jot ci ndénkaane bub sëriñ Tuubaa ndénkaane ci ndénkaane sëriñ Tuubaa yi tey nag ñu tànn leen ndénkaane bu am solo nga xam ne mooy dénkaane li Sëriñ Tuubaa mus jël dénkaane nga xam ne ñaari fan ba mu ko dénkaane ñaari fan la ci defaat wuy borom ndax samedi la joxe dénkaane bi dimanche altine te yor yor mu wuyu ji boroomam dénkaane boobu lañ fas yéene ñun tey te dafa mel ne dañuy wax dafa ala moo ci am ndax ndénkaane li mi ngi amoon bisu gaawu fan ak juróom benn ci weeru Tamxarit atum mille trois cent quarante jii la altine fukki fan ak juróom benn ci mille trois cent quarante un kon bis ni tey ci tàkkusaan yii may joxe bind bi di joxe ndénkaane lii bis ni tey ci tàkkusaan la sëriñ Tuubaa joxe woon dénkaane bi boobaag léegi def nag quatre-vingt-quinze juróom-ñeent fukki at ak juróom bu dee ci atum euh, xamare bi quatre bu dee ci weer tubaab mi ngi amoon samedi le 16 juillet samedi le 16 juillet la amoon tey la lundi 16 septembre kon day mel ne le 16 août bi weesu le 16 juillet bi weesu la def 92 ans kon def na 92 ans di teg deux mois su dee ci atum jant bi kon dénkaane boobu nga xam ne ñu ko Sëriñ Tuubaa def ak léegi def na quatre-vingt-quinze ans ci atum weer bi def quatre-vingt-douze ans ci atu tubaab bi moom lañ bëgg ñëw ak yéen ñu fàttalikoon ci ñu nafaraat ko ngir la ci Sëriñ Tuubaa wax ñu mën koo jariñoo waxtaan wi nag cheikh Mouhamadou dénkaane bi cheikh Mouhamad Lamine Diop Dagana indi na ko tuddee ko xutbatu wam sasin xutbatu wam sasin cheikh Mouhamad al Amin Diop daga ak dagani ak dagaan yu dig na waaye boo demee ci jawaamiul kalim fi ma warada an al abdil xadim min ulumin wa xikam te sëriñ Sylla ibnu oxtu Cheikh Al Khadim bind ko moom itamit indi na ñoom ñaar ñi nag kenn ku ci ne da ngaa fekk jataay ba Cheikh Mouhamad Amil Diop Dagana yi daa fekk jataay ba buñ demee bu ñu demee xutbatu om ci biir danañ fekk keroog samedi 16 juillet bi sëñ Tuubaa jullee timis ba noppi suuratul baqara ba mu doon jàngalu moom itam ba ci maa yaxaadihuuna illaa anfusahum maa yasuruuna Cheikh Mouhamad Al Amin Diop Dagana moo ko doon jàng kon fekke na bu dee sëriñ Sylla moom nee na téeréem boobu lépp lu mu ci nettali lu mu déggee ci gémmiñu Sëriñ Tuubaa la wala lu mu toxale ci mbindam kon gis nga li ñuy wax kon lu authentique la lu wér la lu wóor la ñaar ñu ko bind kenn ku ne da ngaa fekke néewoo lañ maa nettali kon loolu mooy sunu dénkaane tey bi kon nag ñu ñëw nag ci euh, li sëñ Tuubaa waxoon kon dañuy njëkk ñëw ak yéen ci lu Cheikh Mouhamad Al Amin Diop Dagana yu bind Dagana yu bind ci xutbatu wam boo demee ci téere bu ñuy wax irwaawu nadim min asbi xubbil xadim te ñu def ko diraasa wa taxqiq te ay mbokk yu baax def ko diraasa def ko diraasa ak taxqiq ci paas ba demee ba téere ba jeex boo demee ba irwaawu nadim jeex def nañ ci almul xaq tuddee ko xutbatu wal xutub bu téere bi jeexee rek bu Irwaanul Ibn jeexee rek ci paas deux cent quarante fa la jeexee bu paas boobu jeexee rek ci la indi nag xutbatu wal xutub boobu ñu ne amara Cheikhul Xadim radiyallahu taala anhu bi ijtimaahi naasi yowma sabti saadisa asara muharrami xaama wam sasin mille trois cent quarante six ñu def ñoom ñoom ñu def la quinze septième mois mille neuf cent vingt-sept miladiye baxda salaatil asr ñoom nee nañu sëñ bi mi ngi digal ñu dajale nit ñi gaawu samedi fukki fan ak juróom benn ci weeru muharram atum mille trois cent quarante ci gàddaay dëppoo quinze septième mois mille neuf cent vingt-sept quinze juillet mille neuf cent vingt-sept waaye ñoom loolu lañu bind ca suuf ñu ne xutba bi sëñ bi mi ngi ko def ñaari fan mu njëkk muy dajeeg borom 16 muharram 1346 def 15 juillet 1927 ñu ne wa hiya aaxiru liqa ab sayxi al musraji minhu bi muridi wa kaana liqa wax zin wa sawtiyatin wa widaa ñu ne mooy ndaje bi sëñ bi mujj dajeeg taalibe yi nga xam ne daje bu la ab dénkaane ak tàggatoo waaye man damay faral damay wax ne Euh, gis nga euh, le 15 bi ñu def euh, man damay wax ne le 16 juillet la woon le 16 juillet la ndax muharramu muharramu 1346 weeru tubaab wa ak weeru olof yi dañoo ànd comme ren nii weeru tubaab bi àndee weer ak weeru olof yi mois de septembre bii nekk ñi mu àndee weeru mois de septembre bi ni mu àndee ak weeru tamxarit ni ñu àndee nga xam ne ñoo bokk benn bis nga xam ne tey la seize tey la tey la seize ci weeru muharram waaye tey la seize ci weeru septembre mille trois cent quarante six ñaari weer yi muy juillet ak muharram noonu la ñu àndee woon loolu yóbbu naa vérifier ku delluwaat ci kii man nga ko xool dugg ci internet mën nga ci am lu leer naa ñu kon samedi fukki ak juróom-benn ci weeru muharram tolloog tolloog samedi le 16 juillet 1927 ci la sëñ bi dajale woon samedi dimanche lundi di le 18 juillet ci la sëñ bi wàccu liggéey di 18. muharram ci la sëñ bi wàcc ci ab liggéey tubaab ba xam naa talaata la ko yëg ñoo tax ñoom ñu bind le 19 juillet xam naa ñoom date bi ñu ko yëgee ci lañ ko bind sama xalaat ndax ñoom tubaab bi dañuy bind le 19 juillet ci la sëñ bi jógee waaye en réalité sëñ bi mi ngi ko jógee le 18 juillet sob altine ndax bu dee le 19 juillet kon sëñ bi day mel ne. farata la fi jógee te altine la fi jógee sëñ bi nag bi mu dajalee nit ñi ci gaawu fukki fan ak juróom-benn ci muharram 1346 le 16 juillet 1927 ginnaaw ba ñu julee takkusaan comme heure bi ma koy defee nii ndax may julli naa takkusaan ba noppi sëñ bi dafa wax kam haada al yawmu min ashahri waa tey la ñaata fan ci weer wi fa xaalu sittata xasara ñu ne ko fukki fan ak juróom benn fukki fan ak juróom benn fekk sëñ bi woote na ba la ñu ñëw mu ne alaykum bi sukunin wa taskini iyalikum wa qillati dawaraani wal xayab wal xaybaati ila fi ma la budda minhu ila yawmi lmawlidi aw ilan ilan silaaxi shahri lmawlidi sëñ bi mu ne teel a ñaata fan ñu ne ko fukk ak juróom benn mu ne dénk naa leen ngeen dal ngeen dal dalal seen njaboot sa maytu wëreelu bi ak kàddu yi muy génn yi lu dul ci lu mënta ñàkk ba ca bisub gàmm ga wala ba weeru gàmm nga jeex noonu la ko waxee ilaa yawmi mawlidi aw ilaa insilaaxi sahril mawlidi sëñ loolu njëkk a wax kon lam njëkk a dénkaane mooy dal njaboot gi dal ñu maytu ne ko génn yi ak wër bi lu dul farata rek ba weeru gàmm gi jeex wala ba bisu gàmm gi cheikh Mouhamad Lamine Diop Dagana nee na ginnaaw loolu mu ne ayyuha naasu ahmadu rabbakum alladi atalaxakum li ibadatihi ee yéen nit ñi jaamu leen yàlla mi nga xam ne moo leen boyal ngir ngeen jaamu ko wa maa xalaqul jinna wal insa illa li yabudun yàlla mi leen bind ngir ngeen jaamu ko ba noppi boyal leen ngir ngeen jaamu ko yombal leen ko mu ne wa man xuyyidoo yaani bi kufrihim aw bi dunubihim lam yacbuduuhu yaani aslan wa lam yuxsinu fi ibadatihim mu ne ñu nga xam ne dañ leen a tënk xam nga yéen dañu dañ leen a boyal ñi nga xam ne dañ leen tënk maanaam seen wedd yàlla wala seeni bàkkaar moo leen tënk ba jaamuñu seen borom rafetul ak seen jaamu kon yàlla moo leen bind ñu gëm ak ñu wet yépp digale ñu jaamu ñu jaamu ko am ñu boyal ñu jaa ñu jaamu ko am ñoo xam ne seen wet yàlla ak seen yéefër seen wet yàlla ak seen seen kéefër ak seen bakkaar moo tax jaamuñu yàlla aslan walla bu ñu dee jaamu yàlla rafetlu day mel ne lam yaxbuduhu yaani aslan mooy ñi nga xamee ne bàkkaar ñi nga xam ne kéefër moo tax moo tax seen diggante moo leen tënk ba jaamu yàlla aw bi dunoo bi him mooy wala bi yënsunoon ci ibadatihim sama déggéen mooy ñi nga xamee ne euh, bàkkaar bi moo tax mënuñoo rafetal seen jaamu yàlla mu ne wa min xaqi man alamakum awamiruhu allati tuusilu ila jannati wa tufarrixukum bila tarahin abadan alaykum an tutiuhu watam tamtasilu xata tafuusu bi tilka saadati al abadiyati allati la saxaawata maaha wala baxdaha ay wala baxda laha mu ne ak xaq ñi nga xam ne ñoo leen di xamal ndigalu yàlla yi nga xamee ne moo leen di yóbbu àjjana di leen bégal mbégte moo xam ne nii yàqare dootu ci mu ne ñooñee di leen jàngal di leen xamal ndigalu yàlla yi leen yóbbu ajana ñooñee ama amal nga leen àqi topp leen te jëfe ndigal yi ba keroog ba ngeen di làqee texe googu nga xam ne texe googu dappetuloo texe googu sax la ba faw nga xam ne ak texe bi ànd ak moom ginnaawam ak texe du am kon nee na ñiy digle ñiy xamle ndigalu yàlla yi ñooñee amal nañ leen àqi topp leen mu ne wa min xaqi alaykum is alamakum manahiyahu allati tajurru ila annaari wa tuxzi wa tutrax abadan bila farahin an taqbalu wa tajtanibu xata tafuutu bin najaati alkaamilati wa raaxati daima mu ne ba tey ñi leen di xamal tere yàlla yi tere yàlla yi nga xam ne mooy xëcc nit mooy xëcc nit jëme ko ci sawara mooy xëcc nit ko ci ak coone bu coone bu sax ci lu amul benn mbégte ke leen di xamal tere yàlla yooyu kooku am na àq ci ngeen nangu lim leen di wax te moytone ko tere yooyu ndax ngeen mën a mucc ci ngeen am mucc bu parfait mucc gu mat sëkk ak noflaay gu sax mu teg ci ne alaykum alaykum bi tawjihi nazarikum wa imamikum ilal masalatayni dénk naa leen ngeen jëmale seen gis-gis ak seen yitte ci ñaari masala yi mooy lan an taalamu ma umirtum bihi wa tafalu ngeen fexe xam liñ leen digal bu ngeen xamee ngeen liñ ngeen jëfe ndigal xam li yàlla digle te jëfe ko wa taalamu ma nuhitum anhu wa tantahu maa ngi leen di dénk ngeen xam lu yàlla tere ba noppi nag bàyyi ko wa suddu aydiyakum ala hatihi masala ah na ngeen téye ñaari masala yii mooy xam li yàlla digal di ko def xam li yàlla tere di ko bàyyi na ngeen ci ñëpp seen ñaari loxo yi ndax fa innahuma ulumul awwalina wal axirina xam-xamu ñu njëkki woon ñu njëkki ña ak mujj ña mooy xam ndigalu yàlla te di ko jëfe xam tere yàlla yi te bàyyi yaani bil amali bi maqtadaahuma sabaxa man sabax xam li yàlla digal di ko jëf xam li yàlla tere ba ko sëñ Tuubaa nee na képp ku jiitu ci nga jiitoo wa faddala man fadala min al awwalina wal axirina ku gën ci ñu jiitu woon ak mujj ñi yaa ngi gënee ci xam li yàlla digal di ko def xam li yàlla tere bàyyi ko li sëñ Tuubaa mujj dénkaani am na solo lool lu mu ci teg suma xaal suma xaala wajtahidu fi salawaati alxamsi wa sadaqati wa duaay mu ne dénk naa leen ngeen farlu ngeen farlu ci julli juróom yi ngeen farlu ci sarxe ngeen farlu ci ñaan lii la sëñ Tuubaa wax keroog ci takkusaan jooju nga xam ni bis ni tey la amoon samedi fukki fan ak juróom benn ci weeru muharram 1346 ginnaaw takkusaan tey jii ñu nekk ci altine fukki fan ak juróom benn ginnaaw takkusaan ci weeru muharram 1441 nga xam ne baag lay def na 94 ans wala 80 95 ans 95 ans kon lii la wax keroog nag ca waxtu takkusaan wax Cheikh Mouhamad Lamine Diop Dagana teg ne summa rajaa ila an atal maxribu fa salla nee na sëñ bi bi mu waxee lii ba noppi joxe dénkaane bii mooy njaboot gi dal njaboot gi dal waytu mooy tane ko néewal génn bi lu dul mën a ñàkk jaamu yàlla xam li yàlla digle nga di ko jëf xam li yàlla tere nga bàyyi ko ci lay xamal li yàlla digle nga topp ko ki lay xamal lu yàlla lu yàlla tere nga nangu lam lay xamal sa moytunu ko lam lay tere digle ñu sax farlu ci julli juróomi ak saraxe ak ñaan bi sëñ bi waxee li ba noppi sëñ bi daa daa daa dellu fatu ba julli timis ba mu julli ba noppi su ma saqaraa baada ashaabihi ay ahmad al amin jóob awwala surat al baqara fastafta bittaawuzi wal basmalati wa xaraa ila xawlihi ulai fahumul muflihun cheikh mahamadu dana nee na daf ma jàngaloo njëlbéenu sootu baqara ma ne audu billahi min alcheytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim alif lam mim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 nee na mu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko haadihi sifaatul muminin lii mooy melaw ñi gëm yàlla loolu mooy lan alif laam miim yàlla moo xam ne mu ci namm mu ne téere boobu sikk sàkk sikk sàkk amu ci njub la ñeel ñi ragal yàlla ñi ragal yàlla ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla ci faddu di taxawal julli di joxe ci seen wërsëg ñooñu mooy ñi gëm nañ wàcc ci yow ak lañ wàcc itam diisaloon la ñooñee kat dëggal nañ ne yow alaaxira am na mu ne ñooñee nag ñu ngi ci ak njub bu tukkee seen borom ñooñee gaa yi ñooñu ñooy way taxee sëñ bi ne ko lii mooy melaw ñi gëm yàlla daan ne ko ñoom dañoo mel ne ndab bool boo xam ne suuf bi dafa dañ ko dafa fermé wu kaw gi ñu ubbi ko mu ne dafa nangoo nga def ci dara loo ci def mu téye ko ndab loo xam ne kaw ga dafa ubbeeku suuf bi fermé wu loo ci sotti rek nee na ndab li da koy téye nee na ñi gëm yàlla noonu lañ mel su ma xaale zip mu ne ko continuer fa zaada ila an balaxa wa lahum adabun azim loolu mooy inna alladina kafaru sawaun alayhimu anzartahumu am lam tunzirhum la yuminun xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absaarihim xisaawatun wa lahum azabun azim loolu mooy gaa yi nga xamee ne dañoo weddi yàlla moo xam nga waar leen wala waarul leen du ñu gëm yàlla yàlla dafa kasta seeni xol kasta seeni dégg kasta seeni gis xisaawa dekk ñooñu nag mbugal mu tar ñeel na leen sëñ bi ne ko fastawqafahu fa xaala sëñ bi ne ko yemal foofu mu taxaw mu ne ko haadihi sifaatul kaafiriin lii nag mooy melaw ñu weddi yàlla les mécréants mu ne ñoom kat dañoo mel ni ndax loo xam ni dañ koo kaste ci kaw kaste ci suuf amul fenn foo mën a dugal ndox mi ci biir mu ne ñooñee mu ne loolu ndab loola mënoo caa def dara ndab loola mënoo caa def dara kon ñooñu ñooñu ñooy yëfari su ma xaala su ma xaala zib fa zaada ila an balaxa wa ma yuxaadihuuna ila anfusahum wa ma yusirun fastawqafahu mu ne ko jàllal dolli mu dolli lam dolli mooy lan wa min annaasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmi al axiri wa ma hum bi muminin yuxaadicuuna allaha walladina aamanu ma yuxaadicuuna illa anfusahum wa yasuruun fi qulubihim maradun waaw ma yasuruun la yem wa min annaasi man yaqulu aamanna billahi wa bil yawmil aaxiri wa ma hum bi muminin yuxaadicuuna allaha walladina aamanu ma yuxaadicuuna illa anfusahum wa ma yasuruun mu ne fa yemal foofu mu taxaw mu ne ko haadihi sifaatul munaafiqiin lii mooy meloo munaafiq munaafiqiin mu ne te loolu mooy am na ci nit ñi ñuy wax ne gëm nañ yàlla gëm bis dañ fi te ñoom gëmuñu dañuy wax amul dañuy nax yàlla ak ñu gëm yàlla nee nañ ñooñu la ñuy nax waaye wa maa yuxaadi'uuna illaa anfusahum wa maa yash'uruun ñoom daal seen bopp la ñuy nax te yëgutu mu ne ko loolu mooy melaw naafiq yi ñoom kat ndab la am na bën-bën ci kaw waaye suuf gi tamit dafa bën nee na loo ci def dana bu ci biir waaye bu ci duggee rek jàll nangu na nga def ci daal waaye loo ci def nag du ko ñomal nee na sëñ bi daal yem foofu neena na sëñ bi nag tekki daal di leeral daal di ne tanbihun lii kat ak yeete la ak leeral la nee na wax bi suñu borom wax ne yuminuuna bi ma unzila ilayka wa ma unzila min qablika gam waxoon ci mu ne ko loolu kat yuminuuna bi ma unzila ilayka loolu mooy alquran gëm nañ alquran jii alquran ji màgg ji wa ma unzila min qablika nee na loolu mooy la jiitu alquran te yàlla wàcce ko ba alquran bi ñëw sëñ Tuubaa ne wal xikmatu fi zikriha una sëñ Tuubaa ne nag safar xikma bi nekk ci sax ñu tudd ko fii mooy an naayu an it taaddubi kama waqa lil yahudi wa nasara nee na loolu ngir fere farfarloo ngir fere farfarloo nga xam ne daloon na yahud yi ak nasraan yi te mooy fere ak taadub nee na suma taxawala walam yahud hatta salla isa al axir sëñ bi wëlbati ko nag deltuwul ba mu julli gee bu mujj suma raja xaalil fajari wa salla sëñ bi gën suwaat na nag ca fajaru dibéer ja sëñ bi daal julli fajar boobu ak nit ñi mu ne haadihi axiru salaati binnaas lii mooy mujj gi mujj julli ak nit ñi suma stabara muxtajiman min al ahadi ila almadaga bihi laylatal arbahi almufi li xesit muharam am am ji neen nag sëñ bi fatu fatu fatu ci dibéer jooju ba ni mu demee ci boromam ci guddi àllarba googu nga xam ne mooy ñaar fan ci muharram loolu nag li mu ci jublu mooy bis boobu ci ko denc mooy guddi ñaar fukki ga di guddi àllarba nga xam ne ci la màggal ci la ñuy màggal màggal Daaru Xudoos waaye bis ba mu faatoo nag bis ba mu delloo ci boroom nag mooy altine ja ca yoor yoor kon dénkaane bi mu ngi noonu nii la ko ak Cheikh Mouhamad Amine Diop Dagana indee ñu ñëw nag ci li sëriñ Sall indi ci téeram boobu nga xam ne mooy jawaamihul kalim incha allah bu dee sëriñ Sall ibnu Uxtu Seex li indi ci téeram boobu nga xam ne mooy jawaamihul kalim fi ma warada anil abdil qadim min ulumin wa xikamin te nga xamee ne bis ni tey la ko gaawu fukki fan ak juróom benn ci muharramu 1346 tey di altine fukki fan ak juróom benn ci muharramu 1441 mu ne wa xaala aydan baadama salla alxasra imaman liljamaati yowma sabti assadis xasara min awsati muharrami wamsatin maa lastuhu hakaza nee na te waxoon naa la waxoon naa leen ne sëñ Sira nee na séeréer bi lu mu ci wax da koo jëlee ci sëñ Tuubaa ci gémmiñam wala mu soxalee ko ci mbindum sëñ Tuubaa mu ne sëñ bi ginnaaw bi mu julee tàkkusaan te moo jiite mbooloo ma bisu gaawu fukki fan ak juróom benn ci muharram 1346 neen dafa wax lu mel nii dane amartukum jamihan bi imsaaki alsinatikum wa lusuumi buyootikum maal ijtihaadi fi duwaai wa sadaqati wa iqamati salawaatil xams nee na digal naa leen yéen ñëpp yéen ñëpp digal naa leen ngeen téye làmmiñ te sax ci seeni kër ànd ak farlu ci ñaan ak saraxe ak taxawal julli juróom kon muy juróomi yëpp gàtt tànk gàtt làmmiñ gàtt tànk farlu ci ñaan farlu ci sarxe farlu ci taxawal julli juróomi lii la sëñ Tuubaa digle muy juróomi ndigal yu am solo yoo xam ne bu ñu ko jàngatoon mën nañ caa génne lu bare bare làmmiñu wu gàtt day tax a mucc ci ñaan sarxe taxawal julli juróom bi mu jeexee nag mu ne wa an laa yatluba ni ahadu minkum li amrin ma ila mtilaqi rajulil awal mu ne tey bu kenn ci yéen ñëw ci man di ma sàkk ci man di sàkk di ma sàkk ngir mbir mu mën a doon lu dul weeru gàmmu mi daa jeex wa qaala inna sababa dalika annahu arada lakum yusurukum wa yanfaakum wala yudrukum fi mu ne li waral loolu nag dañ leen a nammal lu leen di jariñ di leen bëggal te leen lor ci ñaari kër yi daal ci teg ne luy ballixa saahida minkum wal minkum wal xayda luy ballixa saahida minkum al xayda nee na ci fekkee ci fekkee jotaay bii ci fekk sama nenkaane li ci yéen na ko jot li ku ko fekkewul mu ne su ma axlaxal baaba nee après mu tëj buntu ba nag waxta jaba xana nekk nee na mu fatu ci daal laxiqa bi rabbin naas ba ñu ngi wéejee borom lii la sëriñ si indi kon gis nga dénkaane bi yi mi ngi nii dénkaane bu authentique la bu wér la dénkaane boo xam ne nii Cheikh Mouhamad dañu dagal nett na ko te da ko fekk sëñ si la nett ko te da ko fekk kon lu wér a ngi nii muy ni sëñ Tuubaa mu ci dénkaane ci kaw suuf mbokk yi yàq jàpp daan nag mag mu ne la nga mujj dénkaane lu la ñor la kon nag sëñ Tuubaa lim dénkaane mooy téye làmmiñ sax ci kër yi bañ a doxee lu dul farata farlu ci ñaan ak sarxe ak saxawal bi di juróom lii la sëñ Tuubaa mujj dénkaane kon nag ñu mën cee jàngee ñu mën cee jàngatee ci xutba bii ñu mën cee jëlee ay bind yu baree bari ay bind yu baree bari mën nañ cee jëlee ay bind yu baree bari incha allah moom xutba bi ba ci njëkk mooy ku jiite aw nit yor aw nit war ngay di wax ak ñoom foo toll di wax ak ñoom ba ci sag mujj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi fi nekkee ajab googu mooy xajjatul widaa aj googu ñu tuddee ko aju tàggatoo gi moom itam gis na dafa wax ak nit ñi def discours bu am solo boo xam ne ni jaami on saamil la waaye sëñ Tuubaa tamit fii fii ba mu dajalee nit ñi moom itam dénkaane bu matale jaami on saamil moom la ba nag fi joxee digal nag ne ñi fi ñi teew dañ ko jottale ñu teewul kon bëgg na message bi jàll kon dañ ci njëkk dañ ci njëkk a déggee ne yor aw nit war nga leen di jox ay orientation war nga leen di jox ay dénkaane sa kemtalaay kattan ba ci sa ak mujj waaye danañ ci déggee ne sëñ bi lim dénkaane la ci ëpp solo mooy jàng ak jëfe li nga jàng jàng gi mooy xam li yàlla digle xam li yàlla tere jëfe gi jëfe gi mooy li yàlla digle li gis ko yàlla nga bàyyi ko te loolu mooy taqwallah te loolu mooy li yàlla ragal yàlla bi mu dénkaane mooy li yàlla dénkoon ñu njëkk ña ak ñu mujj war nañ caa déggee ne waxtu wu ne naa am ñuy jàngal nit ñi di leen xamal yàlla digle di leen tere li yàlla digle ñu déggee ci tamit boo su boobaa nit ñooñu topp leen dafa war ñu déggee ci tamit ne ñu déggee ci tamit ne bind lu am solo la bind bind lu am solo la tey wax ji sëñ Tuubaa mujj wax bu ko sëñ si la bind toon Cheikh Mouhamed yow da nga ne bind ko woon muy nettali oral rek nit ko ne mën nga ko nettali nu mu la neexee te kenn du xam la cay authenticité la cay dëgg la cay wér kenn du ko xam léeg-léeg sax nga dégg ñuy tudd bis bii naan sëñ Tuubaa mujj dénkaane am yi mu ca wax yu bokk te yii da ngay xam ne ah loolu de wérul li wér mooy lii Cheikh Mouhamadou Diop Dagana bind sëriñ Sylla bind ko te ñaar ñu fekkoon ko di boromi xam-xam yu ragal yàlla yu maanu ñëpp nangu leen kon ñu dégg ci am solo mbind solo mbind mën nañu ko jàngate ci xutba bii ndax buñ ko bindu doon tey jii nii ku ne mën nga koo nekk di doon neex yokk ca wala nga wàññi waaye lu ci waay yokk ñu xam ko lu ci waay wàññi ñu xam ko loolu nag la ko mayee mooy bind kon lañ ci mën a jàggate bari na waaye bañ a guddal moo tax xam naa mën nañoo yam foofu rek ci li war a jàngatee ci bind bii nga xam linkaan bi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa mujj a def kenn ku ne la nga fekke taw wér bind ko ba fi dana tax bu ëllëgee ñu sa ginnaaw man caa sukkandiku ba duñ ci yokk duñ ca wàññi kon lii rek lañ doon jox dénkaan tey bi wa axiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu